alors waxtaan bi dañu koy tàmbalee Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ak élection yi nga xamante nii moom la ñu euh, mujjee génn muy élection législative yi euh, Touba ñu ngi ko doon wax tantôt nekkoon itam zone bu nga xamante ne ni dañ ko waroon a parce que reconfiguration politique moo fa am ak itam euh, mouvance présidentielle bi wala pouvoir bi renforcé wu woon bu baax a baax mais ñu gis ne à notre grande surprise ngeen gagné ko élection législative yooyu pour yow lan mooy sababu defetuk encore une cas benn bokk yaakaar ca Touba euh, ak nan nan nga ko jàngate waaw Mohamed euh, jërëjëf ci laaj bi di sant waa bu baax si seen mat gën am ak taxawaay bu rafet bi ñu taxaw ci élection yi xam nga yàgg nañu gagné Touba ci élection opposition bi ndax boo xoolee bi fi Macky Sall nekkee ba tey mos a gagné Touba mais ren dafa rawati ndax euh, seetlu gi nga si seetlu ni maanaam malgré que ay moo yu baree bare def na ko fa ku nekk jóg même ñi nga xam duñu ay policiers nekk ay hommes d'affaires yoo xam ne si nguur gi sax la ñuy jàppale ñëpp ñëw wàcc Touba ak defet bi ñu fa am kooku yaakaar naa ne lu jar a jàngal la lu jar a bàyyi xel la ci nguur goo xam yor na nguur waxuma la yor nga ko mais bi nga faloo ba tey mosoo ko gagné mais sa dernière élection bi nga xamante ni moom moo la dese woon muy élection législative moom moo ko dese ci réew mi ci élection nga perte ko perte boo xamante ni bu jéggi dayo la ndax histoire Touba ci su ñu am score bu toll nii ci élection législative wala locale même à 2017 ak Ablaye Wade 65000 voix la woon tey ñu ngi 109358 voix loolu nag jàngat bi dafa bari ay lu ko ay lu nga ko mën a jàngate benn bi mooy makki Sall si boppam ñàkk gum ñàkk jublu population bu Touba ak taxawaay bi bokk na si beneen bi mooy doomu Touba yi nga xamante nii dañoo amul lu dul Touba di taxawal Touba ku si mel ni man. mu jaay ma doole jàpp ma kidnap ma tëj ma si koso bi ngir toroxal ma loolu bokk na si beneen bi mooy ñam fa tànn ci ay candidat yoo xamante ni tey amuñ yitte ci askan wi faale wuñu askan wi ñen ñi nekkoon ay député pendant cinq mos ñoo taxaw ensemble national tudd Touba tudd waa Touba tey ñu tànnaat la jiite leen loolu bokk na si beneen bi mooy am na si ñoo xamante ne ñu ngi ci seen liste ñoo xam ne responsable APR lan ku si mel ni Abdou Bali nekk ba élection yi campagne bi bëgg a jeex ak Touba ni mu toll ak ni mu mel ngay organiser am mitin ci biir kër sëñ Touba gi loolu naqar na waa Touba loolu lépp mën naa koo boole ak defet yooyu noonu ne yooyu yëpp bokk na si boo ko boole mooy defet bi nga xamante ni ab jàngal mën nañ ko wax ni loolu bokk na si li dañ ko xañ d'accord est-ce que apportu coalition wala intercoalition yi Wallu également ndax pesé na ci defetu benn Bokk Yaakaar ci Touba. xam nga intercoalition Yewwi Wallu dafa gën a yokk électoral parce que man mi wax yow. ci intercoalition bu laa nekk. Mhm. dama ñëw ak sama mouvement ñëw nekk alliance. Mhm. ak waa wàllu ñu jiital ma Yewwi ñëw ñu àndandoo def intercoalition. Mhm. ma ne leen woon bu ngeen ma jiitalee dinaa leen gañe Touba. yaakaar naa bi ma koy wax mooy le huit ci manifestation bi ñëpp dégg nañ ko le neuf ñu xëy jàpp ma même bu ma tëddoon kasa daan gañe Touba parce que ma wax am naa garantie ni man diirub li ma fal Assemblée nationale musuma tëdd ba set. te xalaatuma population bu Touba te lu ma am séddu naa ko waa Touba loolu nag dafa am benn rendement ndax Touba rek population bu nekk duñ ay nit lan te Sëñ Touba lan gëm du caa ngi da ngay jékki-jékki rek ñëw ñi cëpp seen kanam ni lii laa soxla il faut que nga am loo jëflante ak ñoom am foo leen taxaw am foo leen nekkal ba tax na maanaam boo leen laajee ñu man laa jox ndax yaakaar la am te xam nañu Touba ni muy pesé Sénégal kooku jàpp na ni ku ñuy fal ngay dellu si pencum ndaw réew fa nga fal ñuy seetlu bés bi war na nekk koo xamante ni heure bu taxawee war na bàyyi population bi xel. loolu euh, mooy li nga xamante ni am na si intercoalition bi yokk na si. ndax victoire bi ñu ñëpp ñoo ko bokk ensemble mais loo gisu nekk dafa am kuy ne si kanam. loolu moo waral euh, tey score bi. ñu ñu sante ko population bi. ak responsable yi ñu àndaloon yëpp. ndax kenn ku nekk liggéey nga si liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la mhm. bu nee ba si biir danga si gën a waxtaan mhm. ndax tey jii maanaam si intercoalition bi rek am na si ñoo xam ne bu ñu gëmutoon tey euh, li nga xam mooy projet coalition bi mhm. kon bi leen proposé xaalis ñu jaay suñuy PV te loolu lépp daan ci waxtaan. absolument dinañ ci gën a xuus ndax lu am solo la temps que ñu jox Fatou Abdou moom it mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw ba ñu la nuyoo. fay nañ la bu baax Mouhamed am mbégte dala sur le plateau honorable député Cheikh yi ñu pare ci résultat yu gis nañu euh, coalition am euh, juróom-ñett fukk ak ñett yi coalition euh, Benno Bokk Yaakaar am am bu ci tegu muy la jóge ca njiitu coalition bokk gis-gis liggéey Pape Diop eh, bi jàpp ne dañu am un régime présidentiel eh, boo xamante ne tey bu fekkee ne dem nañu ci opposition bi ñu am une majorité absolue à l'Assemblée nationale mën na nasaxal ci li nga xam ne mooy doxalinu réewu Sénégal loolu mu joxe comme raison ba tax mu dem ci coalition Benno Bokk Yaakaar yow naka nga ko jàngatee. waaw Fatou Abdou maa ngi lay sant ci question bi bu am solo la xam nga nit kuy dem rek mën ngaa dem. waaye di lay yoo xamante ni tegul fenn aussi tamit yaakaar naa yàpp askan wi la président Pape Diouf sama grand frère la sama xarit la parce que partenariat lu bare bare ñoo àndoon nekk bokk politique formé no parti bi ngir loo xam amoon na aw naqar ñu àndoon ak moom depuis Sénat Macky Sall 2012 bi mu tas Sénat dafa am lu taxaw mu tas Sénat wax ni Sénat gi nga xamante moo fi nekk dama bëgg ko tas parce jël xaalis bi dugal ko ci mbënn mi dana ñëw ci mbirum mbënn mi président Pape Diop bi ñu nekk député wax na ni Macky Sall nguur gi ñu ko jox poir bi ñu ko jox dafa ëpp dañ ko war a wàññi moom wax na loolu ci mandat bii mu yore wax na loolu ci assemblée nationale bi mu nekk député wax na loolu ci benn daje mu ne sénégalais dañoo war a maanaam assemblée bu am doole boo xamante ni nguur gi muy Macky Sall li ñu ko jox ñu man koo wàññi. Mm. waxoon na loolu tey jii bu fekkente ni dafa waxoon loolu. ci bi mu nekk ci opposition bi tey mu dem ci Macky Sall mu wax ne maanaam lii moo tax mu dem ci Macky Sall kooku nañ ko nangul jàngatam mais man gisuma ko noonu. man dama jàpp ne àddina bu nekk il foo ngay bàyyi xel ëllëg gis nga réew mi boo koy def boo koy wax war nga bàyyi xel sa waxi démb ak sa jëfi démb bu méngoo ak sa jëfi tey nga xam nit la Macky Sall nga sañ-sañu boo nekkoo si opposition bi te ànduk sa ngor nga seeti fu la neex am nga sañ-sañ boo nekkee si au pouvoir bi te gisoo fa sa bopp nga ñëw si opposition bi kenn ku nekk nangu nan la ko mais prétexte bi ñu si teg nag moom la ñu d'accord parce que man mii di wax a yow ci moom laa nekkoon maa gënoon a jege bi ma koy bàyyi di créer mouvement boobu lii tey am nii gisoon naa ko waxoon naa ko askan wi Babacar Fall RFM matin invité na ma di ma laaj ci diggante gloria bi war a ñëw ba tudd ko ma ne ko gloria bi dana ñëw bi ma génnee dama woo mu ne ma ku la wax ni man gloria laa buy dem ma ne ko bés boo demee yaa yow yaa demal sa bopp mais doo yóbbu kenn waxuma la man mais ñi ne si parti sax tey jii may wax yow d'accord institution bi mu def nit boo ànd da nga leen respecté mën nga jeexal politique. man nga am ambition pour sa famille wala say bien. man Gloria yow euh, dès le départ euh, jàppoon nga ne moom mooy le Gloria dont parlait le président euh, que xamoon naa ne day dem si Macky Sall tout le temps parce que lu xamoon naa ni day dem si. yan acte la posé woon ñu wane ne dafay. ñoom toog nañ benn Macky Sall woo ko pour décorer ko mu ne ko du la seet si du ñëw nanguwuma. at bis topp Macky Sall waat ko mu dem nangu lam bañoon. boobu benn signe la ñaareel bu fekkente ni tey moom Macky Sall si boppam xam na président Pape Diop bu baax président xam na Macky Sall bu baax man mi doo am loo xam ne xam naa ko si bu baax woon ndax am na loo xamante nii xamoon naa ko waaye man dama nekk nit koo xamante ni man nit mun